paparazzi yi quoi. mi ngi noonu mbokk yi ñuy suivre à travers Sen Lamb TV xam ngeen ni tey nii yaakaar naa Fapal nañ xam Alioune Seye 2 xam kàddu yi di làmb ni mooy géej rek daal ka nuñ leen di a baax di leen delloo euh, rek dañ koy jaale papaam ndax ni que ndeysaan démb rek daanaka soirée ñoo ko passé ensemble mm-hmm. tey ñu xëyee ñu lii nga xam ni que euh, yàlla rek ka mën mm-hmm. donc euh, dañ koy wax si di ñaanal papaam yàlla xaare ko àjjana jéggal koy bàkkaaram yëpp donc euh, jàmbaar la xam naa ni sànq ni may waxee ak moom nee na bég na lu tax mu bég say xam naa ni dem bi am nañ ci yaakaar waaw te soo amee yaakaar rek moom alhamdulilah rek lañ mhm. Mhm. ci mën a wax. waaw. li ma jot dégg tamit. Mhm. paa bu baax la woon. bu bëgg waa koñom fonk nañ te yéen témoignage bi moom soo ko amee rek euh, xel day dal. waaw. étienne tey tey macha allah wax nga ko léegi si biir wax démb mu jóge si signature contrat yaakaar naa tey mu ñëw tëdd yeewoogul sax ñu dal di ko fëgg xamal ni ko sa waajur bu góor génn àddina bi façon douleur boobu noo ko mën a xamee. waaw soo soo dëgëree rek alhamdulilah. allah te moom ku dëgër la donc euh, dañ koy sante yàlla parce que du moom mooy choisir yàlla su soxlaa jël donc du tàggoo tamit suy jël donc ku sa heure jot rek da ngay dem donc ko sante yàlla te nañu rafetal lépp lii rek day wane ni que lii lii rek kay dëgg day rek mooy dëgg leneen ay kii la rek. Mhm. donc euh, dañuy faral di rafetal saa su ne. Mhm. xam ne que ñu ñëpp fii la ñuy mujjee. Mhm. incha allah yaakaar naa c'est l'image qui tey ku ñu armée bu Pikine gis nga mbooloo bu am solo bi nga xam ne dawoon na ko topp. mëndu làmb daal di ëpp si bile mbooloo bi tey lii lan la si làmb war a mën a jàng. waaw mooy ñu ñëpp benn lañ. des fois nga dégg coow coow coow waaye làmb moo ànd ak coow rek mais ñu ñëpp benn lañ. ñu ñëpp ay frère lañ. donc genre yi nii su amee muy ngénte muy dëj muy naqar mu donc nii rek lay mën a demee donc képp kuy bëgg yàq léeg-léeg sax soo xalaatee lii rek di nga seetaat sa bopp wala di nga xoolaat li ngay wax donc nañuy rafetal moo tax moo tax ma nañuy rafetal saa su ne waaw saa su daal sooy rafetal moom mën nga am yaakaar ëllëg lan nga mu muñ waaw ci la tool mu muñ ba pare mu xam ni que war na war na war na war na téye njaboot na tey njaboot gi te am nañ yaakaar ci moom ndax ku am fulla la ku am fayda la te guerrier la xam na boppam tamit donc loolu daal euh, dañ koy ñaanal daal moom it yàlla may ko kàttan yàlla may ko doole boo xamante ni dana mën a surmonter yëpp incha allah ndax ñàkk waajur dafa métti waaw mais dañ ko wax courage rek da xam ni que incha allah ajjana la jëm soobee yàlla suñu borom na ko ñëpp ñaanal incha allah jërëjëf a ko yàlla xaare ajjana vraiment vraiment tey daal ku teew fii gis mbooloo mi mm. ah man de sama xel dal na ci xawma ku xelul dalu waaye man sama xel dal xoola mbooloo mi ko topp xoola mbooloo mi xoola mbooloo yàlla ko yàlla xaare àjjana daal tey laa mel ni axlu làmb ñëw na de gis naa ci ay makan mbeg waaye axlu kenn desul axlu làmb ñëpp ñëw ñëpp ñëw ku ñëwul tey di nga ñëw suba te hmm. tey ñëpp ñëw xool li topp paa bi hmm. xool li ko topp nan ko ñaanal rek nan hmm. ko ñaan ñun rafet nañ ci njort rafet nañ ci njort man nii de yàlla na am lu mel nii su ma demee yàlla na lu mel nii gunge ma waaw waaw amiin yaa rabana amiin yaa rabana lu mel nii yàlla na ma gunge yàlla na ma gunge tey daal vraiment daal sama xol dafa fees mënu maa wax daal waaw ndax waaw waaw kii dem sama papa la sama papa la test ñoo àndoon dem si ànd maa ko yóbbu maa ko tey xëy am ah kon nag lu yàlla def daal xañ na loolu moo gën yaa yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na dëddoo njaboot bi jàmm lan ngay dégg Aliou Seye hmm? ñàkk waaj mu góorgóor rek métti na trop trop hmm. ndax Aliou soo ko xoolee tey dafa jooy ndax hmm. li tax mu jooy man xam naa ko ndax su sañoon moom tey balaa waajuróom bu góor bi génn àdduna gis soxnaam wala mu gis njabootam comprendre nga jooy yi yëpp tolloo ci la bokk ndax ni paa meloon ci moom tamit ni paa meloon ci moom wax dëgg yàlla Alioune daal ñàkk na waaye nag vraiment mel na ñàkkul ndax ay magam a ngi fi ay kilifa am a fi li ma koy wax rek mu tourné di ñaanal paa bi rek saa ne ndax mi ngi ci moom yàgg na ci lool ak sama ak sama waa que ba mu ñibbee yàggul sëñ Babacar alam sëñ Babacar la tudd su ma mosaa ñëw ne alam paa bi ne eh, toog liiru sëñ Babacar waxal sëñ Babacar ndeysaan waxal sëñ Babacar moom laa paa bi dafa dëgg yooyu sëñ Babacar ci xolam kilifa la da yar doon yar wax dëgg yàlla yar waaw yow xam nga xam nga fi bu baax a man daal paa nan na nga ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaar jan yàlla na ko sëñ Babacar keeru loolu nag la nga koy ñaanal di ñaanal njabootam gépp mm-hmm. ñoo leen koy jaal di ko jaale njabootam gépp bàyyiwunu kenn mhm. ñëpp ñoo leen koy jaal ngay joxe ci àdduna bi ci lu baax def lu baax rek moo solo tey fii ku fi ñëw xam ne def lu baax am solo mhm. ki dem sunu waajur la ku baax la waaye tey ji am na ñu fi teew ñoo xam ne tey mhm. njabootama tax ñu teew fi njabootama tax ñu xew moo tax lu waay di def defal lu baax looy leble leble lu baax xoole Alioune Seye du tangam lu kenn muy xaleeg mag ak paak koo mënta doon soo ko wooyee mu teew loo xew le mu ñëw tey ji loolu mooy nag xoole tey ak lu lamb ñëpp ñëw mbër ma promoteur yaag ménageurs yak euh, ba ci président yi tout tout tout tout. di ñëw waaw. talum nag fees. non ñëpp lañ bloqué ñu waaw xanaa paa bi kilifa ah. ko boo musaana ñëw. waaw waaw dañu ko non dëgg la dëgg la non dégg nga wax ji ah, ah, jumaa ji bañ ko fi dugalee. Hmm. jumaa ji jéppiwu ko. waa koñ bi axlu koñ bi yëpp yëpp xam nañ kuy paa bi. Hmm. na ko yàlla xaar àjjana paa bàyyi laa yàlla na ko yàlla xaar. di ko jaale njabootam non non non ko tey. waaw waaw incha allah waaw suba xam naa. ñoo ngi koy jaale ñëpp ñoo ngi koy jaale ñëpp Alioune Seye daal hmm. ah wéet na de na yi roy ci moom. wéet na de lii nii tey nii moo gis ni mu am ko nii tey. Hmm. lan moo ko waral mbaaxam. ku ñëw moom ngay Adi ku ñëw rek Aliou Seye ngay wax kon nag la nañ jéem xool ci moom te mbër kenn desul ñëpp a ñëw tout tout tout ñëpp a ñëw waaw waaw sama rakk la ñëpp ñoo ko bokk waajur ñun ñoo ko bokk mhm. waajur ñun ñoo ko jërë ngeen jëf amin yaara bana amin yaara bana ñu bokk amin yaara bana ñu bokk yéen gis seen taxawaay journaliste yëpp boobu ba léegi yéen a ngi bëgg caméra waaye ñemewula caméra waaye nag xam dëgg la waaye Aliou Seye dafa bokk ci yéen ah, lii lépp ay témoignage yu baax la rek ndax tey ji Aliou moo ko liggéey ci réew mi moo ko liggéey ci réew mi moo ko liggéey ci réew mi ba pare tamit waajuram mii dem nekkoon kilifa ci biir gox bi nekkoon kilifa ci gox bi ah taalibe sëñ Babacar la seen sëñ Babacar tubaarka yàlla na ko sëñ Babacar teeru yàlla na ko sëñ Babacar teeru dum nuyu naa la fay naa la ba yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bu baax ëcca tey yéen waa Guédiawaye wala njabootu làmb sax ñu daal di yeewoo li nga xamante ni mooy naqar ñu daal lu ñu annoncé eh, décès ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Seye Euh, bi nga yëgee loolu say réaction bu njëkk lan la woon. waaw dama yeewu ñu taal sama téléphone rek di essayé quoi. Mhm. ak nga imaginer démb mag Diaz ñoo demoon. deuxième mhm. ñoo fa nekkaale woon. woon sa papa wàññeeku la ma xalaat ci moom ma xam ne loolu dina dis trop ci moom. Mhm. waaw ñëwantal boobu laa ko am quoi te moom xaritu papam la woon xaritu yaayam la dañ koy gisee nii. Diaz mën na nekk suñu mag mais su déggee biir seen biir kër liir dafay nekk liir. liir ndeysaan waaw. moom ay xaritu waajuram lañ daal. Mhm. waaw du di ñaanal paa bi yàlla jërëm ko xaaru ko àjjana. nga gën a xam si paa bi. yii sell. sell sell baax. ñëpp kilo mburu waaw mais ñëpp kilo mburu ah bon waaw loolu moom xam nga suñu mag yi sax laa koy déggee. ndeysaan. waaw kooku moom dañ koy ñaanal soo xoolee tey Pikine mu mel. Mhm. nit ñi si buntum lañ yem kenn mënul dugg. dëgg la waaw loolu rek dal na xel daal. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ak mbooloom jullit bi mu fa fekk ak ñu ko fay fekk incha allah. lan la si làmb war jàng parce que tey mu xew la gis nga moo xam naqar la que ce soit bànneex. Mm-hmm. saa yu dara xewee dañuy gis ëxlu làmb ñëpp dañuy dajee. te mm-hmm. tey lan la si làmb war a jàng lii. waaw làmb la si jàng la ñun mbëri yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mm-hmm. lamb rek moo ñu boole su lamb jeexee rek jeex na mhm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mhm. bànneex dañ koy bokk naxar dañ koy bokk mhm. waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk sax luñ bokk waaw kon affaire lamb daal mbëri ñooy mën a mayante seen xaalis ñoo mën a mayante macha allah mais loolu jeexee jeex na jeex na waaw à part ça ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ngi lañ koy jàll jaajëf jaajëf Alioune Seye Alioune Seye junior turandoom di Alioune Seye la fi waajuróom bu góor bàyyeekoo tey ñoo ngi lay nuyu Alioune Seye di la jàll ñu bokk waaw wax baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal suñu papa yàlla yërëm ko xaar àjjana di ko jaale Alioune Seye deux turandoo di ko jaale monde lamb di ko jaale waa écurie Waalo yëpp la mm-hmm. di leen wax daal paa bi daal bu baax la woon taaliba Serigne Babacar Sy bu baax la woon yàlla na ko Serigne Babacar Sy teeru yàlla na ko Seexu Tijaan teeru yàlla na ko soppam ba teeru Serigne Azimane yàlla na ko yàlla yëpp taxal fañu sax am nañ ci yaakaar nag bu baax a baax a baax a baax a baax am nañ ci yaakaar bu baax a baax lan lan nga gën a xam si moom si ay jikko yi nga xamante ni doomu aadama baax rek laa xam ci moom ndax heure bu ma ko mosaani ñëw fii di di woo si Alioune Sèye pour ñu def entraînement balaa be maa ngi lay eh, nuyu di la masaw di la jàll ñu bokk siyaare di jox gaa yëpp seen wàccuwaay di wax baatu inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun ñaanal suñu kilifa gi nga xamante ne moo fi jógee yàlla yokk ko fa mu jëm gënal ko nga ma mën a wax si jëmm ji hmm? mën a wax si jëmm ji fi bàyyeekoo tey waaw kooku mën nañ ne ne kilifa la suñu lépp la parce que nekkoon na way jur xamante ne ne way jur bu fonk doomu aadama la bu bëgg nit la mhm. parce que bu nee na la papa Alioune Seye rek dam naan la suñu papa la mhm. parce que mën na ne ñun ñun ñun ñi nga xamante ne ñun sukk juruñu ñu mhm. Seye la sukk jur dëgg la ñun la gën a fonk fuuf ka Alioune Seye bu ñëwee ci kër gi ñun lay gën a toppatoo ñun lay gën a bëgg lekk ngeen naan ngeen wala def ngeen nii wala def ngeen naa nekkoon na taal Serigne Babacar Sy dëgg la mais ñu ngi koy ñaanal xalifa wa mhm. kilifa comme seen ba muy fekki mhm. mu tax ko ci barkeel mhm. mais di ko ñaanal tamit foofu jëm foofu yàlla gënal ko fa nekkoon na na kilifa koo xamante ne ku gën ci ñun royukaay la woon ci man la royukaay la kooku exemple la lu nit ñi naan monument monument monument la woon ndeysaan te oyofoon nag wàcce boppam mën a kaf ak nit da ngay ñëw fekk ko ci kër gi sa mu la génne ma ñu toog ci buntu kër gi ndeysaan ndeysaan kooku bu mel noonu buñ ko ñàkkee tey. Mhm. kon dañuy wax ne ne ñàkk nañ monument ñàkk nañ kilifa. Mhm. kon daal su ma la déggee daal mooy géejuwaay ñàkk nañu. kilifa bu yàlla baaxal waaw surtout loolu nag géejuwaay moom moo ñàkk. Mhm. géejuwaay moo ñàkk. Alioune Seye ñàkkul ñun ñoo ñàkk. te nekkoon na suñu xarit nekkoon suñu féete nekkoon suñu lépp. mais di ñaanal Alioune Seye yàlla may ko xolub muñ. di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi ñoom ñëpp yàlla may leen xolub muñ. loolu kese lañ fi dese ñaanal ko yàlla defal ko jàmm. jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup jërë ngeen jëf mbokku internet seen làmb ñu ngi amal mbégte jàkkaarloo yéen yaakaar naa nag tey dañoo yeewoo tiis comme yéen ko déggee rek ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Seye 2 moo fi bàyyeekoo tey ji macha allah ñu daal di ko jébal borom foofu nga xamante ni mooy cimetière Pikine tey nag ëxlu làmb ñëpp ñëw nañu ak fi nga xamante ni mooy géejuwaay fas yéene jotal seen jaal Alioune Seye 2 ki ngeen gis nag kenn du ko présenté muy Garga Garga dañu leen nuyu bàyyi nga nuyoog internet seen làmb ñu waxtaan ak yow. waaw d' naan mooy sant yàlla ci di masaw Alioune Seye de di ko wax si gën di yàlla. parce que wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku am ma yëg ko wax dëgg yàlla damay bàyyi sama bopp ñëw loolu tax tey ma bàyyi sama bopp ñëw. ñaanal ko yàlla yal na ko suñu borom yërëm te xaaral ko jaajëfal ci kaw si. mais façon douleur bi noo ko mën a xaymee maanaam nga jógee dem signature contrat tey nga toog ñu tàgg la ki nga xamante ni mooy sa papa. façon douleur boobu noo ko mën a. sant yàlla àdduna moom noonu la. Mhm. parce que demal maa ngi ñëw rek a fi nekk ñun ñii di dem xamuñu ma xam suba dinañ yeewam dëkk. Mhm. moo tax nit moom boo ci nekkee nekkal ci lu baax rek. Mhm. parce que Alioune Seye tey boo xoolee mbooloo bi fi dajee. nga xam ne nit ku baax la. ñëpp a bàyyi seen tey tey ginnaaw bu yaru la wax dëgg yàlla. bu ñu koy ñaanal rek yal na dee noflaayam moom waajuram bu góor boobu fi jógee. ak mboolem bi la képp ku fi fekk parce que ñun wax dëgg yàlla dal na ñu xam nañ li ci nekk. metti la wax dëgg yàlla bu ñu koy ñaanal rek. ak mboolem jullit yàlla na suñu borom yërëm leen taxaar leen ci àjjana fi daa soo tey njabootu lamb yi ba daje fi jàngat bi lan la waaw moo leen la ñu yemale ko ci cadre sport mhm. bu sport jeexee nag ñu ne luwaa ci li mu nekkoon nekkaat ay doomu aadama comme ñëpp mhm. boo leen seqee ñu contrat ñu respecté contrat yi wala mhm. démb moom ak ay kii wax ju rafet lañu waxan moo koyoon sa billaay aduna moom la ngi noonu yaakaar naa bu ñu leen gisee Euh, kenn du laaj lan moo waral ñu daal di teew fii ndaxte Alioune Seye euh, mi nga xamante ni ñoo bokk équipe Pape Alioune Seye mu fi bàyyeekoo tey gis ngeen caatoog ngi noonu sama sama doomu ndey ngi noonu. Thiès seen sëñ Babacar bi duma ngi noonu. peut caat yaakaar naa jël naa dum am na kat yi nga xam ne jël na ko yëkkati jëmale ci paa bi tey bi nga déggee paa bi génn na àddina sa réaction lan la ñaan suñu waajur fi jugee mhm. suñu borom yërëm ko xar ko àjjee yi gën a kawe paa bu baax di paa bu ñeme njaboot mhm. waaw ñun moom fekk lu bare bare bare bare tuuti na ay ndaw la na waaye fekk nañ mhm. xaaju koñ bi yëpp moo leen doon may mburu kon moom paa paa bu baax la ñaan mu xeppee àjjee yi gën a kawe wax fa yàlla paa bu ñeme njaboot paa bu yaatu yaatale boo ko fekkee fii day mel ni ñu lëjee waaw muy paa ba baax gis ngeen climat bi lu mel. dëgg la tey kay fa yeew rek sedd. si mborom xale ko àjjana muy paa bu mën a paa bu mën a maye ñàkk. Mm. Mm. paa bu mën a maye ñàkk a di paa yaatu nag. yorul kenn porte yi. ñoo ngi koy ñaanal si mm-hmm. mborom mm-hmm. mu xeppee àjjana yi gën a kawe. Mm-hmm. loolu la digganteem ak Alioune Seye loo si jot jàng parce que dégg naa amoon nañu benn genre complicité seen diggante. yëgoo bu ne doom yi ndax baax na naan baa yaa tax dëgg la baayam rek moom ci doom ji mhm. waaw boo gisee paa bi rek gis nga ah, la woon mhm. waaw complexe la jaa bi génn tàllu ko ay kon ñoo ngi yàlla na xeppe àjjana paa bu baax la paa yaatu mm. paa bu min jàkk nag macha allah dégg nañ loolu paa bu min jàkk la mm. paa bu ñeme jàkk bu min jàkk jumaa ji moo ñi moo gaawi nii mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moom mën naa koo mm-hmm. ñoo ngi ñoo ngi leen koy jàll équipe seen lamb TV yëpp ñu ngi leen koy jàll waaw ñoo ngi koy a baax a ñoo ngi lay jàll li ñu naa télé Serigne. Mhm. mënoo wax. wax naa télé. mais mais yaakaar naa euh, jàll lañ la da nga ñu war a delloo jàll bi rek. waaw di ko jàll ak lu làmb rek. Mhm. man daa mun naa ni tey kër gi fii laa jàngee métier. Mhm. tey mun naa fii laa jàngee ministère. bi suñu papa la. tey Alioune Seye du nekkee mun naa yëf yi suñu yëf la mhm. kon kenn duñ ci juut mhm. kon di ko jaale ak lu lamb yëpp mhm. waaw metti na a bees la rek moo am waaw waaw mais dina gane ci kër yëpp dañu ñaan yàlla nag na yéex yàlla na fi yàlla amiin amiin Alioune Seye moom gis nga tey fii nu mu mel kon kenn yéenewu ko nag lii suñu borom la jóge ju bu doon ci lay jóge du am nañ ko gàttal dëgg la nga xam ne ñun suñu papa bëgguñu dara dal dëgg la waaw kon sant yàlla rek di ko ñaanal fu mu tëdd gënal ko fu mu jógee jërëjëf waaw di ko jaale ak lu làmb yëpp nag waaw ñun daal waaw jërëjëf am nañ naqar daal